Aqui. sëriñ Tuuba Cheikh Ahmadu Bamba Xaadim Rasul moom moo wax ni ahyaytu mawlidan nabi fi asasin maanaam màggal naa guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gi mu ganee jamono ci atum asasin loole nag di at mu yàgg moo xam ni daanaka xamee suñu ku ci tàmbalee gàmmo ci réew bu Sénégal ku dul sëriñ Tuuba Cheikh Ahmadu Bamba Xaadim Rasul loole nag tax ci jamonoy sëriñ Saliou Mbacke ak mbooleem xalifa généraux yi nga xam ne nii jaar nañu fi képp koo xam ni def nga discours di woote li nga xam ne moom moo jëm ci màggalu Tuuba da nga cay teg li nga xam ne moom moo di woote gàmm gàmmoo ba ci luñ mujj fàttaliku Serigne Saliou Mbacké da daan njëkk a woote gàmmoo laataa muy woote li nga xam ne moom moo di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar fonk ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba na daayira Hizbut Tarqiyyah mi nga xam ne ñoom ñoo ci organisation jamono ji li nga xam ne moom moo jëm ci guddi gàmmo ci kër xalif général yi ci jamono Serigne Sidi Makhtar jamono ji résidence Khadim Rasoul mi ngi soppi xar kanam daanaka kër gi boo ci duggee doo ko xàmmee bu guddi jam jotee taar ba day jéggi dayo lool ngir jeu de lumière ya nga xam ne ña ngi koy def li nga xam ne moom moo jëm ci matériel sono bi nga xam ne moom moo fi nekk am na doole am doole goo xam ne nii daanaka jéggi na ay kilomètres yu bëri foo tollu dégg xasida yi di jolli xasida yi nga xam ne nii Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul da koo way ci gàmmoo jamono ji nag ñi ngi waajal jëm ci guddi gi nga xam ne ci la Seydina Muhammad gane woon jamono Touba gépp di ko waajal jamono ji dëkk bi tàmbalee soppi xanam fees dell rawatina ci ajuma ji nga xam ne ci la ñu nekk Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fas yéene koo màggal na ko magam yu tedd ya ak way juróom yi daan ko màggalee fii ci résidence Khadim Rasoul waaye itam màggalee ko ci ni ko Serigne Touba bëggee woon ci defar ay bernde jàng xasida jëzbul mawaahibu ak muxaddimaat ak barzan waaye itam fanaanee dundalee guddi gi ci joxe waaye itam fanaanee dundalee guddi gi ci sunna